ahlan bi jotaayu koor ahlan la bu ngeen di ànd ak fadilatul ustaaz ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ngeen mën ko am ci DR Malo TV bis bu nekk ci weeru koor gi bu disnever h jotee mën ngeen ko xaarit ci whatsapp wala facebook ci DR Malo officiel ngir ay leeral jokku leen ci nimero yi yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaah. mbokki jullit yi ñuy topp ci DR Melo TV ñoo ngi dellusiwaat ànd ak yéen ci suñu émission bi nu bokk mi liqaat ramadaaniya ci liqaat ramadaniya nuy daje di séq ak ay jàngat loo xam ne danga koy def ci weeru koor bi ak lépp loo xam ne lu ci aju la e, di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul nu te nangul leen e, fegal nu te leen te fulal nu te fulal leen sunu jataayu tey mooy fukkeelu jataay ak ñaar bin tàmbalee jataay yi ba léegi mi ngi jëm nag ci beneen group boo xam ne mooy juróom-ñeenteelu groupe bi ci groupe yi doon waxtaane ci mbooloo mi muy nag jigéen ji nga xam ne dafay nàmpal walla mu ëmb jigéen bu fekkee day nàmpal walla mu ëmb te ragal ne koor mën na koo lor walla mu lor doomam moo xam doom jëm mu ëmb la moo xam doom ji nàmpal la su fekkee ne ragal na ne koor mën naa koo indil lor wala mu indil ko doom ji nga xam ne moo ne ci biir bi wala doom ji muy nàmpal kookee sharia nee na na dog kooram loolu nag moom itam dafay dellusiwaat doon loo xam ne lu am solo la ci sàmm wér-gi-yaramu doomu aadama ak sàmm sax droit de l'homme ndax doomu aadama ji nga xam ne moo ëmb moom ci boppam nit la këm ëmb itam nit la moom mi nàmpal nit la ka muy nàmpal itam nit la sharia bu gisee ne koor mën naa mànkil dundub ki nekk ca biir ba wala lor mën caa jóge ñëw ci yaay ji wala mu mànkil dundub ki nga xam ne dañ koy nàmpal wala lor mën ne ñëw ci yaay ji borom bi tabaraka wa taala dane ko sama ponk bi kat kon sooy boo yëkkati ko bañ koo woor te nàmpal sa doom ëmb sa doom ba jëmmi jamono anas ibnu malik al kaabi radiyallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna allaha wadaa an almusaafiri chatra alsalaati wa an almusaafiri walxaamili walmurdi alsawma aw alsiyaam anas ibnu malik alkaabi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na borom bi tabaraka wa taala teggil na musaafir teggil na musaafir genn wàllu julli waaye teggil na ki nga xam ne dafa ëmb wala muy nàmpal itam koor loolu ab xadis la boo xam ne eh, xadis bu wér la yonent bi alayhi salaatu wasalaam foofu la leerale jigéen ji nàmpal walla mu ëmb fan la sañ sukkandiku ba dog dana war nag mu fay loolee mu yore ci ay bor moom mi nàmpal wala moom mi ëmb su fekkee ne mën na koo fay su amul rek espace boo xam ne ci la ko mën a fay ndax saa bu jógee ci ëmb demaat ci ëmb wala saa bu jógee ci nàmpal delluwaat ci nàmpal ba weeree nara tegaloo ci kawam nag ba bari su boobaa dey sañ naa lele fan yam yore mu bari te mënu ko woor mu lele ko su ma nee woor leen la wala la lele la ca desit ba tey baax na su fekkee tële nañ nag ci wàllu koor su boobaa lele rek moo ko sës su demee nag ba sës ci lele nga xam ne mënta woor mënta lele ndax amut alal bi mu jox ay miskin tanewu leen su boobaa da koy wàcc teewul nag am na ay borom xam-xam yoo xam ne dañ kii nàmpal moom ak ki nga xam ne dafa ëmb moom dañ koy teggil koor carrément ndax xadis boobu yi dafa wax ne yàlla teggil na kay tukki genn wàllu julli teggil ki ëmb ak kii nàmpal koor te xam ngeen ne yàlla bi mu teggilee kay tukki genn wàllu julli Eh, kenn waxul ne ñaari ràkkaay yi muy julli bu see day fay ñaari rakkaay yi ca des kon da koo teggi teggi mutlaq ñaari rakkaay da koo dindi kon nag su fekkee teggi googu yi mu wax moom la wax ci kii nàmpal ak ki nga xam ne dafa ëmb ñu ne kooku it ak teggi mutlaq la goo xam ne moom it du ko ko yàq waaye daal dañuy wax ne loolu am ngir la mu dëgër moo xam ne am na dalil waaye nag xool la gën a léemtu te gën a dal xel moo gën moo tax dañuy wax ne su fekkee ne mën na koo fay na ko fay su ko ta fay mu lele su lottee ci lele gi nag mu door a dikk ci zahiru xadis boobu yi nga xam ne moom laa tudd kon mbokk yi day mel ne ak agsi nañ fi ñu war a yëkkatee suñ jotaayu fukkeel ak ñaar bi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul nu te leen di leen tàggu foofu man dajawaat ci beneen jotaay ci beneen bis ci beneen heure incha allahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لم يتب في شهره من ذنبه فهو الذي قد باء بالحرمان